maître El Hadj Diouf gannaaw bi ñu ko suspendre nag ci ordre des avocats di Sénégal ay nag ñoo xam ne ay euh, xaritam lañ ak jegeñaaleem amal démb ab conférence de presse ñoom nag ci jàkkaarloo ak taskatu xabaar yooyu ñu xam ne ci daal ne kii di maître El Hadj Diouf deful dara loo xam ne kon war na tax ñu amal ci moom euh, bile suspension ñoom nag jàpp nañu daal mbir mi. mbirum politique moo ko laal ngir daal tere kon Maître El euh, mu bañ a bokk euh, ci euh, procès bi nga xam ne war na am ci digg ak Adji Sarr jot nañ fa itam yëkkati ay kaddu yu mel ni ay xas ne teg ko daal ci kii di Ousmane Sonko bésu ba tey bi nag la chambre d' accusation addu ci recours en appel bi nga xam ne ay avocat Ousmane Sonko déposé nañ ko gannaaw nag euh, d' accord ñu gannaaw bi nga xam ne kon d' accord ci li ñu renvoyé ci chambre criminelle dossier Ousmane Sonko Adji Sarr ci coow ak euh, Sweet Beauté ci coow ak kon Sweet Beauté waaw euh, wante nag chambre d' accusation dafa mujjee dàq li nga xam ne moom mooy mbir mi kon ñu ne ba le 21 février. 2023 bi maanaam daal fii ak euh, ay bés kon ci lañu ci la war a kon prononcé waat kon ci recours boobu nga xam ne ñii di ay avocat yu Ousmane Sonko kon déposé nañ ko fa gannaaw bi nga xam ne kon ànduñ ci li ñu yóbbu boobu le dossier ci kanamu chambre criminelle partisan Ousmane Sonko yi ñu tegoon loxo fële ca Mbacke gannaaw meeting boobu nga xam ne nag dañ ko fa teroon ci mujjantal doon amoon fa ay manifestation ba sax ay yàqu-yàqu um, jot fa am lu toll ci 65 lañ woon kii di Assane Mbacke sax di responsable si nga sa Mbacke um, bokkoon na ci ñoom nag gannaaw bu ñu amee retour de parquet ba suba tey bi lañ war a jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy euh, procureur kon bu tribunal grande instance bu Diourbel kon euh, ñu war kon daal euh, amal ab atte si ñoom gannaaw mbir boobu nga xam ne kon mu ngi xewal ajjuma ji ñu génn euh, foofale ca Mbàkke xibaaru bitim réew benn ponk lay doon muy nag euh, mbir moo nga xam ne mu ngay xew ca Turquie ak euh, Syrie euh, réewum Sénégal nag gannaaw bi nga xam ne njiitu réew mi Macky Sall xam ne woon na ne dinañ fa yebal ay solda wante itam jox leen ni koppar loolu nag am na ndax ñi nga xam ne sax ñoom ñooy sapeur pompier ngeen baal ma maa ngi nay soldat wante ay sapeur pompier lañ ñoo xam ne kon réew mi Sénégal yebal na leen dogal démb départ nañ ñu départ nañ fa li nga xam ne moom mooy euh, ay BD ki nga xam ne sax moom mooy ambassadrice bu Turquie fii ci Sénégal kon teewal na ci départ boobu nga xam ne kon ñu ko doon amal bu weesoo su kon sapeur pompier nga xam ne dinañ fa dem ngir participer ci soldats nguurug Sénégal it yëkkati na lu toll ci 600 euh, millions de francs CFA ngir jàppale daj kon euh, Turquie jamono yi nga xam ne kon ñu ngi dund lu métti te it yittewoo euh, ndimbal lool. armée sénégalaise bii di Gueye Ndoye nekkoon nag ku ràññeeku ci wàllum dribble euh, saut ak saut en longueur moom nag euh, moo génn àdduna gannaaw bi nga xam ne nag ñu ne feebar moo ko tëraloon moom nag euh, amoon na ñeent fukki at ak ñeent muy koo xam ne nag ku ràññeeku la woon ci wàllum yoo xam ne international la wante itam fii ci niveau Afrique jot na fi am ay raaya parce que ñu nekk na fi ñaari yoon li nga xam ne moom mooy champion tafrikan moom moom lee kenn doy moo fi bàyyeekoo ñu ñaan rek yàlla jéggal ko ay bakkaaram te xare ko aljana lu ñu dajee xibaaram seen teewlu ñu jox di daje ëllëg jaage